mouvement M2D aar sunu démocratie mi ngi incliner la mémoire ci ñi ñuy woowee les martyrs de la démocratie muy ndaw yi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan ci manifestation yii ñu jóge Sénégal mdd mi ngi jaale njabootu ñépp ñi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan waaye tamit di jaale bépp sénégalais di ñaan ku ko ci man ñu ànd ak ñi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan ba ñu denc leen seen kër gu mujj mdd 2 mi ngi woote benn journée de deuil national ci ajjuma fukki fan ak ñaar ci weeru mars pour ñaan fii ci Sénégal ak ci bitim réew pour que ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci manifestation yi yàlla xare leen aljana ci loolu m d mi ngi woote bépp sénégalais ci bis boobu ma koy fàttali muy vendredi 12 mars ñu sol ay yére yu weex waaye tam sol ay fulaar yu weex ñu def ko ci biir kër yi def ko ci oto yi def ko fépp ci Sénégal ak ci bitim réew m mi ngi yëgal sénégalais yi dinañ organiser tamit benn téléthon boo xam ne liñ ci jubli mooy luñ ci am ci alal ñu mën a jàppale ñi nga xam ni am nañ ay gaañu gaañu yu métti ci manifestation yi te nekk ci ay hôpitaux fii ci Sénégal ak famille victime ñi nga xam ne également ñàkk nañ seen bakkan m aussi mi ngi constaté que ni répression bi nga xam ni nguuru Macky sàll moo ko def jëmmale ko ci ay manifestation ay manifestant yoo xam ne amuñu benn ngàndaay bu fukki bakkan ak benn rocc ba juróomi téeméer ak juróom ñeen fukki sénégalais également am ci ay gaañu gaañu yu métti loolu tamit ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax di wax ni ba léegi am na ñoo xam ni nguuru Macky sàll mi ngi wéy di leen traqué di leen fekk seen ay kër wala seen barabu liggéeyukaay di leen jàpp te lu ñu tegul ci fenn histoire Sénégal dana jàpp ni nguuru Macky Sall moom moo boom ay sénégalais yoo xam ni benn ngànnaay yooyu ñu ko ay innocent victime lépp lu ci am nag ci jàngat ak ci jeexital m dana ko ci tiire loolu moo waral barabu juridiction national ak international muy barabu euh, attekaay yi nekk fii ci Sénégal ak ci bitim réew danañ leen saisir bu ko defee ñi def ñaawteef yooyu ñu mën leen identifier jàpp leen daan yi nga xam ne aussi moom moo war ñu teg ko seen kaw m bi nga xam ne li ko yëkkati rek mooy aar sunu démocratie ak sunu état de droit mi ngi lancé benn appel di ko jëmale ci bépp sénégalais ñu taxaw xeex pour que dictature oppression ak injustice bii nekk ci biir Sénégal ñu man ko fi jëlee loolu moo waral bi complot bi commencé M2D assumer ne responsabilité lépp lum mu def def na ko ba organiser sénégalais yi ànd ak ñoom ci xeex bi ba tey moom moo jur ñu bàyyi kii di Ousmane Sonko mdd nag dégg na appel yi nga xam ne mi ngi jugee ci ay kilifa diine ak ci ay kilifa aada lool moo waral manifestation yi ñu waroon a amal talaata 9 ak àllarba 10 mars ñu dàkk ko ba beneen yoon m mi ngi réaffirmer engagement ak détermination pour wéyal xeex bi pour démocratie ak état de droit dellusi si ci Sénégal moo tax am na ay ponk yoo xam ni moom mooy lal xeex boobu ci ponk yooyu bi ci jiitu mooy ñi nga xam ni ay détenus politique lañu te ñu des ci kaso yi ci lu ñu tegul fenn ñu bàyyi leen ci lum gën a gaawe ñaareel bi mooy ñu taxawal benn commission nationale indépendante boo xam ne dañ koy ubbi société civile bi ak ñu nekk ci opposition bi bu ko defee ñu mën a saytu yàqute yi nga xam ni manifestation yi indi na ko bu ko defee ñu mën a xool également yan ndàmpaay la ñuy jox njabootu ñi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan ci manifestation yooyu ñetteelu ponk bi mooy ñu ubbi benn enquête bu ko defee ñu mën a retrouver ñépp ñi nga xam ni seen loxo laal na ci ñaawteef yooyu moo xam ay takk der la wala wëyu bandi yi nga xam ni ay nervi lañ te nguur gi recruter leen bu ko defee képp koo xam ni sa loxo laal na ci ñu mën leen a juger teg leen daan yi war m fan yii ñu ñëw dana génn benn kayit muy benn mémorandum boo xam ni ñu ngi ci tënk fukki poñ poñ yooyu moom mooy wax perspective yi nga xam ni moom la ñuy jox combat bi ñu nekk m 2 mi ngi woo peuple sénégalais ci benn rassemblement pacifique bu ñuy amal à la place de la nation muy place de l'obélisque samedi bi di 13 mars 2021 bu 15 heures jotee rassemblement boobu nag lenn moo ko yëkkati mooy ñi nga xam ni nguuru Macky Sall mi ngi leen tëye ci kaso yi te lu ñu tegul fenn ñu bàyyi leen ñu dellu seeni kër dellu si seen ay njaboot.